waaw waaw damay blindé sama téléphone ba bu daanoo du def dara yéen a ko doon gis ci internet bi mu jaral leen ngeen di yóbbante seen ay téléphone ba Sénégal ngir ñu blindé ko machine bi jàpp ni ne fii ci diwaanu Argentine ak mu du seen mu Serigne Bara mi ngi fii conse bi ci place Gora Seck Wari ñëw leen ngeen blindé seen ay téléphone ngir mu am sécurité bu mat sëkk blende leen seen ay téléphone ba mu daanoo du def dara jàpp dina ak mut seen mu sëñ baaxa fii ci ONCB bi place Gora Seck Wari. bu la neexee boo defee ba noppi xoolal da ngay dóor bu la neexee dóoral du def dara dara du ko def. bu du am benn benn jafe-jafe du ko am lii kay moo gën a moo gën a dóoróob terrasse te du def dara.